ak jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i gi di réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Tunisie jamono ji sonn nañu ba mara détaillé ma ne la jaaxle nañu tumuranke nañu li ñuy sàkku mooy ñu jëli leen Tunisie andi leen ci réewum Sénégal réew mi ko di moo xëy di ñu ko xibaar ñi nga xam ne nag ay doomu réewum Sénégal lañu te nekk ca diwaanu Tunisie ñoom jamono ji nee nañu amuñu mooy kilifay réew mii di Sénégal amul benn jéego boo xam ne mën na ñoo wax ne teg nañ ko si journal bi di réew mi ko di jëndee na en tout cas li am ba lambay ñaaw ndax askan wi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal nekk ci Tunisie jaaxle nañu lool ñoom nee nañu sonn nañu waaye tamit ñoom nee nañu dañoo daal di bloqué woo yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Boubacar Seye nee na nag réewu africain yi ñoom ñoo war a woolu seen ambassadeur yi nga xam n maanaam ñoo nekk ci diwaanu Tunisie ndax doxalin wii nga xam ne Tunisie ñoo ngi koy doxee maanaam rafetul jaaduwul Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal di waa FRAPP ñoom nag dañoo bëgg amal toogaanu ñaxtu noonu ci buntu ambassade bu Tunisie ajuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ci diiwaanu Ndakaaru yéene kaay gi de l'Observateur bàyyi mbir moomee wax ci koor gi nga xam ne léegi tey mu ñëw te nag dund gi cher ba mara détail yi mën la journal bi nee na njëg yi nga xam ne moom la gouvernement bi daal di fixé ak commerçant yi li nga xam ne moom la ñuy jaayee comme yàlla ak yàlli li am ba desale koor gi léegi tey mu ñëw waaye nag dund gi moom cher na ba mara détail ci marché bi journal bi nag nee na consommateurs yi mën la askan wi ñoo ciy tumuranke ñoo ciy dee yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko daat nay bind ñi nga xam ne ñooy waa bitim réew communauté internationale bi Ousmane Sonko bind na leen daat nay dénoncé ñaawlu bu baax a baax ñaawteef yi nga xam ne moom la ko Macky Sall yi teg waaye moom Ousmane Sonko ñaawlu na bu baax a baax droit am yeeg àqam yi nga xam ne dañu koo daal di violé dañu koo salfaañe loolee Ousmane Sonko ñaawlu na ko ci kanamu communauté internationale waaye tamit ñaawlu na bu baax a baax yorin wu bon wi nga xam ne moom la Macky Sall yore réew mi nee ma mal nga xam ne moo am ci réew mi bi bi nga xam ne Macky Sall daf koy jëfandikoo kaw ay adversaire politique am loolee lépp bokk na ci li nga xam ne Ousmane Sonko daan na koy bind waa bitim réew waa yéen a kaay gi de la témoin nee na Ousmane Sonko yemul foofu daan nay wax lu jëm ci wàllum tentative d'assassinat bi nga xam ne ma ngi koy dund ak arrestation yi mën a jàpp gi nga ne ma ngi mel ni tulleeg màlli ci ay ñoñama ak wàllum violence gi nga xam ne moom lañ koy teg di ko teg ñi mu àndal ci wàllum politique loolee lépp Ousmane Sonko ñaawlu na ko journal bi de Le Quotidien yor yor ñu fekkaat ko fa moom Ousmane Sonko nee na Macky Sall noonu démocratie la nee na Macky Sall bëggul démocratie gëmul démocratie nee na Macky Sall gëmul liberté politique bëggul liberte politique nee na Macky Sall bëggul jàmm ci askan wi soxlawul jàmm ci askan wi yéen a kaay gi de la Tribune nee na en tout cas li am ba Sall Macky Sall mii nga xam ne ñu bari njortoon ñu ne maanaam dafa bëgg am na see Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall jamono jii nag ku mu neex nga daal di samp ab laaj ne est-ce que Macky Sall ba léegi ma ngi bëgg am na see Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall bi de la Tribune nee na nag Aminata Touré Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Ababacar Sall jamono ji seen bëgg ba Macky Sall jóge ci bopp bopp réewum Sénégal waaye nag Karim Wade ak Ousmane Sonko Khalifa Sall ñoom dañoo am lu leen doy sëkk nañuy fexe daal bu bokk ci élection yi ñoom loole la ñuy lijjanti yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu sëy dox diggante Idrissa Seck ak Macky Sall bu ñu leen waxee na leen sëy ba tas na bu mu leen bett ndax doxalin wi nga xam ne moom la Idrissa Seck doxalee bëri na ñoo xam ne ci biir Benno Bokk Yaakaar neexu leen ku ci mel ne Abdou Mbow yéen ne mooy foofee la ñu jëma yéen kaay gi de la turbina maître Omar Youm mi nga xam ne mooy njiitul groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nee na mun ta ñàkk de waxtaan mënu ta ñàkk loolee kàddu yu maître Omar Youm la yéen kaay gi de la quotidien yor yor xëy ñu xibaar naan ñu Aïssata Tall Sall la mu wàcc woon lépp lekk na ko ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi fii la Aïssata Tall Sall taxawoon ay jamono wax ne Macky Sall amul sañ-sañ sampaat ndëndëm tey xëyee lekk li nga xam ne nag wàcc woon na ko yéen a kaay gi di évidence nee na xam nga réew mu normal réew mu normal benn at des ci élection yi te yow munoo wax kan mooy dem ci élection loolee nag doy na waar lool ayaa bi mba nga journal bii di évidence nee na muy Macky Sall di Karim Wade di Khalifa Sall di Ousmane Sonko amul kenn koo xam ne man na ñoo wax ne dina bokk ci élection yi xam ngeen ne réew mu normal du doxee noonu de yéen a kaay gi di évidence moo xëy di ko xibaara ndax nee na Ousmane Sonko ñi mu àndala bu ay meeting ñu leen koy tere waaye nag ñi nga xam ne ñoo ànd nguur neexee ñuy mitin sa sigi coora bu leen neexee ñuy mitin ca Medina bu leen neexee ñuy mitin sa Parcelles waaye nag texte nag di def ay provocation xoolal kàddu yu doy waar yi Pape Malick Ndour yëkkati woon jagleel ko Ousmane Sonko yéen kaay gi di source xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr daat nañuy saisir Cour suprême yéen kaay gi nag nee na militant yi Ousmane Sonko yi mane nañ ci bii boor mane nañ ci bële boora source a nee na militant yi Sonko yi daal bu ñu ko bëggee tàngal ci mbedd mi mën nañu koo tàngal loola waaye nag bu ñu bëggee def lu baax mën nañoo def lu baax ndax fan yi ñu génn ca diwaanu Mbàkke militant yi Ousmane Sonko yi tàngal nañ Mbàkke Tuubaa ba mu tàng jër yàq fa lu baree bari ñu teg si ay fan ñu daal di woote li nga xam ne mooy maye deret muy loo xam ne ñu baree bari ñoo ko daal di rafetloo ma ne lu toll si ñetti fan militant yi Ousmane Sonko yi dajale nañ lu toll ci 928 poches de sang ndax gis nañ ne koor gi deret dafay manqué moo tax surnal bi di source a nee na militant sympathisant yu Ousmane Sonko yi mane nañ ci bii boor mane nañ ca bële boor mane daal gis nga bu tàngal mbedd mi rek ñoom mën nañu ko loola waaye nag acte yoo xam ne yu baax la loolee tamit ñoom mën nañu ko yéen kaay gi délibération ñu xibaar naan ñu sûreté urbaine bu Ndakaaru ni ki démb daan nay teg loxo benn actionnaire Copar Express ku tudd Seydou Ba yéen kaay gi nag nee ma nga ci garde à vue yéen kaay gi de ñu xibaar naan ñu njiitu mi di président Macky Sall ma nga ca tournée économique ba ca diwaanu Sédhiou mbooloo mu bare bare bare bari ñoo génn tertu Macky Sall yéen kaay gi de la point Tidiane Ba ba pare nag lancer fa ay liggéey yu jëm ci buukul du pakaaw yéen a kaay gi du l'Observateur Macky Sall nag nee na albarka Sédhiou jërëjëf Sédhiou indi mbaaro Sédhiou yéen a kaay gi di sunu lamb xëy di ñu xibaar naan ñu Sa Thiès ak Reug Reug bi léegi tey mu ñëwa waaye nag Sa Thiès am na 14 victoire Reug Reug am na 14 victoire journal bii di sunu lamb nee na nag ñaan ñii kan moo si am 15 victoire